تقرى إلى الله وحده yanaalul maqaama la ngir ngeen di jot suñu vidéo nag fooleen leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañ ko mën a xam mbooleem loo xam ne wala bu dajee doxul sax moo la xam-xam moo tax mu ne koo bu dee xamante nit ñi am nga wilaaya bu nga dugal nga beew beew moo nga xeeb nit ñi na amul xam-xam na yow wilaaya yaa ko amee yow yaa fi ne mu ne loolu baaxul ci doomu aadama day sib si jëf soo ko demee sa jëf jii de ah ba na si am na sëriñ sëriñ fi bëri léegi te sëriñ demee wu noonu de. ma ne sëriñ demeewul noonu da sëriñ du wutum ne nga dogo déedéet dégg la nga dégg ni ne diw nangam déedéet sëriñ yàlla koy def nit ci coobare yàlla koy doyee toog ñu lay jox xadiya da la lëggéeyal loo wax ñu def ko fekkoon ku mu mën def ko ñëpp dogo voilà ah, sa diggante yàlla rata loo wax yàlla mu def ko bu baax indee si jafe-jafe soo ñaanee mu dem loolu ku ko bëgg képp ku toog fii bëgg nga ko waaye ñëpp duñ ko am kon innal fadla bi yadillaahi yu'tiihi man yashaa wallaahu zul fadli al-aziim waaye nag bu mu tax it nga jël loolu di ko bàkkoo waaw. wasal foo ko jiiru ilay xarfaani laa yëgul jënd ak minal insaan sa yoon xam naa ko de mu ne nit ñi soppi gi leen soppi ne da ngaa xam bu mu tax nga génn ne yow doo doo doon ah man kay dootuma leen sax fi may Türkiye'de şimdi bunu sen bunu mu ne wala si mën a na nga takkoo mahabbata laxyaar bëgg nit ñi na nga bëgg nit ñi laxyaar tànnee ji képp koo dégg ñu ne wëli yu la xam ne wilaaya sa xol bi ko bëgg moo ko wilaaya bu mën xamee sa xol bi nga ko bëgg ak fu mën a ne sa xol bi nga ko bëgg ak ku mën a dox sa xol bi nga ko bëgg bu fekkee ci borom wilaaya la bokk alxuraan yi ak labdaan yi ñoom ñëpp ñu ngi leen bëgg ak mujtahid yi bi nga xam ne mooy ijtihaad dañuy farlu ba génnee masala ci alxuraan wala ñu génnee masala ci hadiis rasulullah ñoo ngi leen tuddee mujtahid nga xam ne ñoom amoon wilaaya waaye sariya la ñuy dundal ba nga xatte booy xattoo si sariya fekk ñoom ñoo ko dund ñoo ko génnee ñoo leen mujtahid ñoom ñëpp ñu leen bëgg digal na leen nga bëgg leen waaw digal na leen nga bëgg leen mu mel ni nag boo leen bëgg de Ezequiel. Dodo Rajab Dodo apa Dodo Rajab Ay nangu misal ko ne yow mi tidak wax ni dala digal mungkin min mumkinil semua sumul sahara ma jilan wa sabbir nafsaka bi hablil hali hablil hali fi tajrib bi dasidin hablil nang ini lo sebab bop ak hablil hali way ko meli mo yomb mu ni la ko baka mayam ak xisa bi ñu demee loolu fi ñuy boo ko nekk loolu ñu gën a loolu moo demee waaye nag maa mel ni kaw Abdou Khalil Abdou Khalil xisa bu gudd la te xisa bu neex la waaw mu lay misaalam ne na nga mel ni waqaat leen bi isni seexi abaaw bi irtiqaari xam bi waame xam mu ne yow taale yow nit ki ak yow taale bi na ngay jëfee ndigal sëriñ bu mu waxoon sa taalibe bi taalibe bi wér bis bi sëriñ bi ne ko dama raay ma sa baay damay bu doon demoon jiw kooku wax mu ngi topp la yow sëriñ bi na ko dama raay ma sa baay tegu ci baax. laajte wu wu gëstu wu laajte wu sa wax ji bi ko sëñ bi ne ko ba seen jaay sa gën a ñëw la mu gën gën gën bàyyi xam nga fii nii am ñoo ne boo ko nekk lu ko nekk léegi nag kon doo am yàlla kuy wut yàlla ah, la ko wax kooku moo lay garanti waaye di jël Oumar Gueye Diouf bu bindee fekk fa bàyyam mu jubali léegi fekk bàyyam fekk fekk yaayam am na góor goo xam ne day njaaloo bàyyam bu koy seeg yaayam xam ñoom sax waa ji bàyyam daam du bàyyam dafa ñëw rek dagg bopp bi moo tax bopp bi ba soriwul soriwul ñëw mënoon sama bopp bàyyi bàyyi ñu mag ñoo toog mun mu xool bu baax waa ji xool bu baax wala kii bi sama bàyyi mu ne mu foog fekk mu ne kuy maa ngi fekk si sama kaw yaay mu sëy moom ñu ma am na waaw mu ne kii du sa bàyyi mu ne waaw te sa bàyyi moo tax sa yaay mu ne waaw mu ne kii dafa njëriñ sa দিলে আরো yàlla dañuy xam benn bu benn bu ci nekk bu fekkee da nga téye sa yaa kese am na boole àqiqa boole sari ha moo tax soo ñëw na doon sariya ak àqiqa ñaari suuf mbaam lañ ci man amul naafeq si gàttal nga xam ne bu dee day ci safar lay mujjee bu dee day ci safar lay mujjee xam nga xale yi look. nekk am na sët bu ne ci kër gi moo ko xool ma ko indil ma ko sëñ bi dañoo xale bi ak sët bi fekk sëñ bi ñaaree ne ca gannaaw dugal ponkalam kuy muy mu rëy waaw taal bi la gisul kuy mi moom guddi gi la gis ak paara bi ak sëtam sëtam sëtam sëñ bi la gis ak paara bi sëñ bi ñaaree ca gannaaw rend xar mi paara mu takk deret mu ñëw fekk ko gars yi ko indi sëñ bi génnee xale bi teg xale bu ñu xale boobu comme foo se na ko seetaanee moom ma rey bi génnee xale bi teg waxtaanee bi ne damay génne ma xar ma war a dem ci gannaaw gars yi dañu génnee mi indi mu ne ko dama doon seet ba xam siru bi may laaj mi ndax attan nga ko laat ko. boo gisee ma tënk ko dama bëggoon a ci beneen thème ba mos jox moo tax nangu naa la xisa boobu ndax waxtu bi xisa yi day gudd day gudd waaw ah, day gudd bu ëpp daal waaw day bu ëpp waaw léegi mu pare xisa bi thème waaw moo tax mu doon jàkkalante di bañ ñeen xisa yi xisa yu bëri ñu ak noo ko war a faram-fàccee ko teree mu bàyyi soo ko bàyyiwul ci tere gi dara cee fekk doo baatal boo defee li suñ bi wax soo ko defee dañ jëlee loo xam ne moom ngay jaamu yàlla su ko jëlee at doo ko mën a am ci ndigal li la suñ digal la def ci ndigal li la suñ bi digal la def moo tax nit day dégg digal waaye nit day bàyyi tere soo déggee ndigal li bàyyi tere yi li ñu lay digal nga def ko li ñu lay tere nga bokk rek dama jot ci yàlla. lépp ci yàlla la ci gën ci yàlla ak bàyyi tere waaye doo jëlee yàlla ci leneen déedéet waaw li ñu lay digal def ko rek li ñu lay digal yow xamoo lu ci biir moo tax sëñ bëgg nañu dimbali ko moo tax mu dugg mu indi foofu thème bu la nag waaw thème bu gudd la waaw loolu yëpp soo ko boolee soo ko boolee ni borom xam-xam a mel soo ko toppee dana gudd tuli dafa sori bokk ci dara mais daal ma ne ba sori parcelle moo neex ay projet la parce que am ñu war waaw te ñun ñu ngi ñu war dem ba soo suñu teewee dara rek ñu mën a yeeweeku ñaan laa ba déwénu xam ne dañ bëggoon a waxtaanee genn wàllu teg baa ngi nii mu jaay moo koy laal sama mooy xam-xam ak borom xam-xam ak borom xam-xam lan la war a def ak borom xam-xam lan la war a mel teg boobu sax moo gën a gudd lii nii waaw waaye nag. bu ko léegi rek ñu teel a commencé. fexe 18 heures. ñu dugg tànk. bu déwénee moom nga fexe loolu. parce que préparé thème on koy wax ak la ci nekk lépp. boo ñëwee doo ko mën a ñor. ndax day baax soo teg bi nga bëgg bi nga bind nga mën koo jotal ba mu jeex tàkk. waaw parce que mooy si laay ngir nekk. waa da bu waa ñu toog doon déglu da nga teg seen loxo yi daal. kon nag bu ko defee yéen a ngi fekkee déwén na. waaw te tàggu. te bu déwénee it yàlla neex lool. yàlla na xam nit yàlla kumb yàlla na am bayre te ñu fekkee ko datal ko waaw bu ko defee Cissé ñu lay gërëm bu baax sa taxawaay baax na lool comme ni ñu ko waxee si njëlbeen loo mën ci lii rek def ko ci bu ko dencal dara bu ko tayalee bu ko yàggu see bu ko naagoo li ngay def mbiram sa ñëwoon daal moom mooy defam te sa ñëwoon képp ku ànd ak moom moo doo perte boo àndee moom yàlla nga àndal soo àndee moom rasulaay nga àndal ku ànd ak yàlla ànd ak rasulaay perte mën na nekk ci yow te képp ku ànd ak sa ñëwoon yàlla nga àndal ko ko anda soñondo rasulullahi nga andal kono yo nawe webne soñoo ndonga andal waaw inchallah kay ah, waaw kay jërëjëf ndaa ndaa yàlla yàlla yombal la ko yàlla na soppeeku milliard waaw ah, yàlla na soppeeku milliard barkala yo ndaw sa barke Toma waaw sañte gi sa Toma amee woon ak maqaam mi xam woon yàlla yàlla soppi ñaari junni milliard waaw borom sañte noonu dañu ma borom li jaab la woon moo doon wax ne ku am soxla soxla bi tëral te sa yaay te sa baay te sa sëriñ ngay ñaan mu të nga saraxe mu të mu ne ñëwal su ko sëriñ mu taxaa ndaw mu mu jox la ku wax loolu xam ku ku daan wax loolu am na barket sañ-sañ ba ak xormaay sañ-sañ ba ak xorma mu yàlla jox moom sa tooma ñaari junni bi yàlla waaw dëgg la xam nañ ko xam nañ fi nga jaaral moom xam ba ko ba ko tawatee lan ko tawatal lan la waxoon mooy dox ba léegi te moom waxoon du dëgg incha allah waaye yàlla bu ñu ca topp yàlla bu am gàllankoor yàlla bu am jafe-jafe yàlla bu benn xar gërëm nañ sant nañ waaw gërëm nañ sa taxawaay baax na lool waaw di nga def si kër Sëñ Onda bi ñëpp ñu koy defal amul xaaj ak seen ci taal bi noonu la war a mel Sëñ Onda dafa waxoon ne su ma ñëwoon yàlla buñ buraan la jërëjëf incha allah yal na yàlla yokkute si yàlla moom waaw. ah yéen a ngi fi yéen jërëjëf Adama Diop xanaa dama doon doon waaw. bu dee yàgg na waaw dama doon doon waaw jërëjëf loolu baax na Everybody. Gracias. concert na ni ñuy doon tubaab yoo xam ne dañuy jàpp ci bis bi ñoom laa ko gërëm ndax sama sëriñ sëñ Mountakha Omar Ndao daan na wax ne bu la lu baax da koy waaw kon loolu tax ñuy gërëmaat léegi bis bi bis bi ci boppam bi ma ko jàppee bi bis bi bi mu jotee bi ma ko jàppee ko tuddee koo xam kii bi ma bis bi dama ko tuddee soxna soo xam ne borom këram suma rakk la ñu ko Aliou Sall mu dëkk Nioro moomu ndëri soxnaam suma rakk la mooy toog nii sol lu weex la sol lu dogal na dëkk mu ngi Dakar moom mii laa marraine bis bi ak suma doom ju baax koo xam ne kii suñu mam soxna Oumar Ndaw ibnu Mawlana social yow ndax mooy mooy mooy mooy moo nekk yaayam muy Ndeye Séni Touré Ndeye Séni Touré moomu moom laa di ma am sama beneen xarit boo xam ne bii yéen ku ma bëgg la mu ñuy wax jiiri mu dëkk mu nekk marché ci leen dëkk kër gay asim waaye doon ku bëgg rajo ma ndaw bi ma jàppee bis bi dama dem ba ci ma waxtaan ko ci moom mu ne ma mbiri rajo ma de ku ma ko tuddee ku ne gërëm naa la sant naa la yàlla dogal nag tey jii mu doon voyagé mu jox sëriñ bu ñuy wax Alaaji Gumba Touré jox ko lim ko jox na ko boo demee nga joxal ma ko si sa yowaqi na dama nek ci yoon ni pour dem bitim rew waaw gumba mu ngor fiye waaw mo di mo delu ci jox sama benen xarit boo xam ne magistrat la ko xamne ki dafa mu bëgg sama xarit la sama soppe la mu ma ci mu nekk magistrat bi ma demee bureau waxtaan ak moom bi ma demé bureau waxtaan ak moom mu ne ma ah yow ya de suma waay nga yàgg nañ yàgg nañ ma ak yow ma ne ko nag dama sama sëriñ laay defal tàkkusaan ci tëngéej dégg yow mii jiit tur ñi ma ko tuddee ci nga bokk mu ne ma kontaan naa ci waaw mu oma téléphone naa dem bureau mu jëflante ak man la mu jëflante ak man ne ma nag mu ngi noonu am na ba tey ku ñëw wax ajaratu madam mbay mu nekk dara su ma jigéen la waxee ci takkusaan gi da ciy bëgg kontaan ci xaw ma téléphone ne ma jox naa la nangam ci ci bis bi dégg am na sama benn xarit bu nekk Amérique ñu ko wax Malick Cissé bi ma ko fayee wax ko mooy dox mu ma sa bis suñu bis la bisu alaajo doon suñu bis la moom Gambie la nee na ma dem naa ci Alifa Bachir Ndaw su ma yor wala ma ñëwoon balaa ma ñibbi dem naa ci Jaalaji Bachir Ndaw moom itam am na lu mu jëflante ak man dem ci bis bi laa ko def waaw ndéegi Cissé kër Laayeen Guèye am na lu mu def ci bis bi waaw maître Assane Sall maître Assane Sall chef de greffier su ma xarit la suma soppe la bi ma ko waxee moom itam am na lu mu def ci bis bi taxaw na ci waaw dégg nga mun taxaa dara mu ngi ñuy topp proprio più. Interessante regione. Muntaha Dramé. Mais ko waxee mooy itam dimbal na ma dimbalé ko bo ne bi maa ma sa ala dégg nga am naa suma xarit ñu ko wax fal gëre bee bi mu ko waxee ma fa taxawaat taxawaat ji ku la defal lu ba danga koy wax waaw dégg nga dégg nga Babacar Thiam libi Babacar Thiam libi dal bi señ mu ndox amoon ndaw waaw lim ma jafar ca ca ca ca jaarale dégg nga dégg nga Modou kër seen dëkk kër seen jaxu mu ngi tileen bi ma ko waxee moom itam noonu dafa man waaw ñoo ñëpp waaw Assane Cissé France Assane Cissé rakk Modou Cissé waaw ba ma ko ko waxee moom itam ci ñëma dimbali ci la bokk waaw dégg nga kon xaw ma rek kon defal baro koy wax waaw Mawar Ndiaye sama jarbaat la bi ma ko ko waxee saako ceeb biñ kii moo ko jënd waaw dégg nga moo di Cissé suma suma suma rakk la moom itam def na ci def na am doore xaalis si suma rakk bi def am doore ñeneen ñi def nañ ci am doore ñëpp kenn mënu lii waaye daal li mën a am daal ñëpp dimbali nañ ma gërëm na gërëm naa ñëpp dëkkandoor yi waa Dengey gërëm naa ñëpp ñu nekkoon ci waañu di togg ak ñëpp naa leen góor jigéen mam doo yëpp nga naa leen waaw mun mun taxa kay tak maa ngi lay gërëm dégg nga maa baax ndax yaa ngi béy ko fi ba Cees taal oto ak suma sëriñ bu baax bi suma xarit bi nga xam ne nii ñoo bokk lépp ñoo bokk groupe Cissé famille groupe Cissé xam ne vingt et vingt ñaan fukki benn ñoo bokk ci groupe Cissé moom mii ci ci bokk waaw kon nag su ko defee ñu gërëm ñëpp sant nañ ñëpp waaw sama xol daa fees man maay wax waaw waaye ñu ngi gërëm ñëpp daal waaw sëñ Daara yéen gërëm nañ leen borom caméra yi yëpp ñoo ngi leen gërëm sama doom ji maa ngi lay gërëm waaw Mbaye gërëm naa ne yéen ñëpp waaw Boubacar Farokh TV ñu ngi lay gërëm ndax yow ba ko jappé ba légui heure bu ne yaa ngi ñëw ci kër gi di waxtaan ak man kon loolu ma ngi la ci gërëm waaw waaw alaaji Maamu Touré Aliou Manka Adama Diom Cheikh Cissé gërëm na ñëpp waaw gërëm na gërëm na ñëpp gërëm na ñëpp sama soxna Adja Khadija maa ngi gërëm sama soxna yëpp maa ngi gërëm sama doom Aïssatou Sakho ñii ñii doog nii waa Daaru Salaam lañ gërëm naa ñëpp waaw waaw soxna ah. yi tooy lépp di daal daal fa am nañ dëkk waaw ah, maa ngi gërëm yii ajaratu lay njaay ñi nga àndal ñëpp mën leen gërëm waaw ah. Fatou Fatou Ka ma ne sama sama ji sama jigéen la ñëpp mën leen gërëm lu xew rek mu ñëw kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp ñu am jàmm seen xol ba seen parce que rasulullah yi suma xamam seen añu man ko waaw a yooyu dafa ci biir biti képp ko xam ne kii ñëw ko fii tànk nga doxee ñëw yal nañ ko bokk daagu ca àjjana barke maqaama Sëñ Aliou Ndaw barke Sëñ Muntaxa Umar Ndaw barke njaboot Sëñ Aliou Ndaw ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dugal nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne qara ilallahi wahdahu yanaalul maqaama la raja